tey nag bunt bi wax mooy baabu yaratil marid yi bunt bi ci seeti koo xam ne yaramam dafa sitante yaani ku feebar jële si bara ibnu azib radiyallahu anhuma mu mu ne yonent bi sallallahu alayhi digal nañu seeti ku feebar nit soo nekkee ak sa mbokkab jullit nga dégg ne yaramam dafa sutante dafa war ci yow nga dem nga seeti ko moo xam ngeen dëkk benn dëkk walla benn kër wala benn réew lu mu sori sori fexeel ba dem seeti ko ndéem sa mbokku jullit la ndéem sa mbokku deret la kon nag dafa war ci ku ne ko bokkal diine wala ngeen bokk deret bu tawatee ak fu mën a ne te nga mën faa àgg bara ibnu azib wax na ne yonent bi nee na lu war la ci nga dem seeti ko mu ne itam wa ittibaa'i janaazati ak tamit topp ci ku génn àddina maanaam gunge ko loolu nag góor ñi la ñeel ci sharia jullit bu góor bu majeur su mbokk jullitam génn àddina dafa war ci moom bu ñu koy jébbali boromam mu ànd ak ña koy jébbali seen borom maanaam na dem ci julleekaay ba bu ca noppee na ànd ak ñoom dem jébbal ko boromam waaye suñu jamono ji ñu dafay génn àddina góor ñi ñëpp presque continue seeni activité te du hut noonu ndax kenn ku nekk ci ñun ñu sóoraale ne bés boobu mënu mucc ala kulli xaalin moom dafay dee te bu deewee dañ koy defal lu mel noonu kon nag li ko war mooy mu gunge koo xamee ne dafa génn àdduna yonent bi wax naa ba tey ne dafa war ci jullit bi digal na jullit bi kon ni ko bara a waxee ne wa tasmitil aatisi ak yaa ngi dégg ñaanal ku ku sóol yi jullit bu tisseelee li ko war mooy mu wax ne alhamdulilahi rabbil alamina léegi nag su waxee alhamdulilahi rabbil alamina képp ku ko jege képp ku ko jege ngay jullit da koy wax ne yarhamukallah soo ko waxee yarhamukallah yarhamukallah boobu moom la bara a wax ne yonent bi digal nañu su nit tisseelee ci suñu wet wax alhamdulilahi dañ ko wax ne yarhamukallah léegi nag su waxee yarhamukallah yow mi ñuy wax yarhamukallah maanaam yow mi aji ci suul li la war mooy nga wax ne astaghfirullahu lana walakum yaa ngi dégg yal na yàlla jéggal ñu jéggal lan yaa ngi dégg mu ne itam wa nasril mazlumi ak dimbale ku ñu tooñ ku ñu tooñ soo nekkee sa mbokk ab jullit ñu tooñ ko bul ko beddi dimbale ko dimbale ko loolu mooy li la war dimbaleel sa mbokk ab jullit ñu tooñ am na feneen na fi yonent bi di wax ne unsur axaaka zaliman aw mazluman dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak bu ñu ko tooñee sahaaba yi nag laajoon nañ ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku tooñ moom wala ba ku ñu tooñ xam nañ bu ñu koy dimbalee ndax dañuy ñëw rek taxaw jëlal ko paar wane ne dañ koo tooñ jël nangu xaqam delloo ko ko léegi nag bu fekkee moom moo tooñ nu ñu koy dimbale nabi sallallahu alayhi wasallam ne ngeen wax dafa tooñ ñu jël xaq bi nga xamante ne moom la xamel mbokkam ñu delloo ko mbokk ma beneen bi wa ijabati daa'i ak tamit nit eh, eh, wuyu woote maanaam nit bu la woowee nga wuyu ko yaa ngi dégg bu la ñaanee nga may ko bu la dimbale ko nga dimbale ko julit dafay wuyu mbokk julitam bu ko woo ak ci ko mën a woo na ko ca wuyu surtout su fekkee ne daf koy ñaan ndimbal wala dafay sàkku ci moom lenn na ko fexe jàppale ci loola mu wax ne wa ifsha isalaam ak tamit tasaare nuyoo julit dafay nuyoo waaw julit dafay nuyoo te nuyoo du ko tënk rek ci kum xam waaw iqra salaama ala man arafta wa man lam taarif loolu yonent bi nuyoo ci koo xam ak koo xamul nekkul ne rek dama xam Seydi eh, Aboubacar moom laay nuyu déedéet da ngay nuyu ki nga xam ak koo xamul te itam ñu bàyyi ñi nga xam ne noonu la ñuy nuyoo fekk mbooloo mu toog nga seppi ca kan ca ràññee na ko eh noo def loolu rafetul jóob na nga def njaay na nga def jaru ko ci comme mbooloo nga fekk boole leen nuyoo bi ñoom ñëpp wax leen ne asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu te ñu bàyyi di nuyoo di wax ne salaamaaleykum salaamaaleykum loolu mooy yàlla bu jàmm nekk ci mooy siima aleykum rek comme ni nga xam ne noonu la asrul na doon nuyoo loolu bu ko kenn def salaamaaleykum kenn du ko wax li ñu war a wax mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa waaye yow mi nga xam ne yow lañu ñu nuyoo nag na nga fay nuyoo yaa ngi dégg na nga wax ne wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa waaye salaamaaleykum maaleykum salaam loolu duhut nuyoo loolu nuyoo ñaan la ñaan jàmm la waaye yow mi nga xam ne yaay wax salaamaaleykum maaleykum salaam dafa mel ni yow nuyoo woowu su ko yow nga nga xam loolu kon nga xam ne salaamaaleykum du nuyoo asalaamualeykum moom mooy nuyoo mu wax ne seeti ku feebar sunna la bu ñu feddali sunnatun mu akkadatun sunna mu nag rakk la ci farata li ko farata xoppee dégere bëriwul kon mën nañu wax ne rek daanaka farata la ndax sunna la bu ñu feddali mu ne wa min aadaabiha ndeke seeti ko feebar dafa am teggihin teggihin bi bokk na ci an laa yatiila wala boog an juluusa àndahu bul dem guddal toogaay ca moom dem seeti ku feebar rek ràcc fa teg fa débat teg fa ataaya di wax ci ku feebar bul def loolu du xel bokkul ci teggi ni seeti ku feebar boo seeti jekk feebar toogaay ba warul warul toogaay bi warul yàgg yaa ngi dégg waaye bokk na ci teggin yi nga ñaanal ko waaye tamit nga laaj ko nu mu def mu ne la moo ngi tane nga ñaanal ko yal na yàlla dolli la tawfiq yal na yàlla dolli la sifaaw yal na yàlla dolli la aafiya yal na yàlla dolli la wér yaa ngi dégg wala yal na yàlla saafara la ci anam ab wér yal na yàlla saafara la ci anam ab wér yal na yàlla saafara parce que saafara ala kulli xaal dafay am boo wérul rek nga saafarawu te dee dee saafara la waaye nag danga koy ñaanal yàlla mu wu ci anamab wér waaw waaye yal na yàlla saafara rek yem ci ala kulli xaal saafara day am kon nag te bul tiital boromam ñëw rek seet si ko gis mu feebar nga ne koy se feebar bi nga feebar de bi ko diw feebare daa faatu yow rey nga nga ko te deewagul et pourtant diw mën na feebar même feebar boobu faatu moom keneen feebar feebar bi te du faatu feebar reyul kenn feebar dafay dimbale malakal mawtu rek ci rey waaye boo leen feebar boo mas a dégg rek yaa ngi am na ku ko feebar te deewul dégg wax ji kon nag saafara bi ala kulli xaal dafay am feebar nag buy dimbalee dee bu ñuy yóbbu borom hôpital hôpital day wax ne gaawal indi ko ma jàppale la ci léegi bu ñuy jënd ordonnance ordonnance yi dafay wax ne man ñëwuma pour faj la de ndax yow yow la dee waaye dama ñëw pour dimbale la pour dee gën a gaaw kon nag bokk na ci teggin yi nga muñ loo boromam ko muñal rek feebar la rek waaw feebar la rek fu dul feebar amul ñëppay feebar waaye muñal ndax boo muñee da nga ci yéege ci ay maqaama waaye itam danañ ci faral say bàkkaar aji feebar bi occasion la ci moom ci biir feebar bi muñ muñee ko yàlla ñu mën ko jéggal ay bakkaaram waaye tamit ñu ngi ko ci ay maqaam yu kawe bi jëlee ci abu hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xaqul muslimu alal muslimi xamsun raddu salaamu salaami wa iyaadatu lmaridi wa itibaa'i ljanazati janaizi wa ijaabati daawati wa tashmiti l aatisi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne xàqu jullit ak mbokk jullitam juróom la ñu ne ko ban ak ban mu ne bi ci njëkk mooy raddu salaam nit bu la waxee salaamaaleykum dafa war ci yow xàq la ci yow nga ne ko waaleykum salaam waaye nag na nga bàyyi xel yow mi nga xam yaay nuyoo na nga wax ca kaw asalaamualeykum waaye di nuyu nit ki mel ni sii de koo nuyu yu sa baat ba kenn du xam loolu rafetul waaye yow mi nga xam ne itam yaay daje ak nit bàyyi ci moom xel ndax mën na laa nuyu bu la nuyuwul ki mooy ki njëkk a nuyoo waaye yëngu mi nga xam ne yaay toog si grand place na nga bàyyi xel ñaay romb da nga xam ne xàq la ci ñoom ñu maanaam dañoo ñoom sunna mu akkade la ci ñoom ñu nuyu ngi dégg kon nag yow tam na ci bàyyi xel waaye toog ci mbedd rek ñu teral rek nit romb la salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum nga ne tekk rek loolu du lu rafet waaye nag buñ la nuyoo da nga dégg ko dafa war ci yow yonent bi nee na nga daal di fay nuyoo wax naa sànq nag ne asalaamualeykum la ñuy nuyoo waaye kenn du nuyoo salaamaaleykum ay bonjour ak ay ça va ay madda ay asalaamualeykum ñun la tënk ñun ñëpp waaw madda jamtan yooyu yëpp du nuyoo li ñu nuyoo mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bi ne wa iyaaratul maridi ak seeti ko feebar xàq la wax naa ko fi ku feebar nga seeti waaye xam naa ne corona moom ko feebar di nga di nga néew ku la seet si waaw musal ñëpp ñi feebar yal na wér wa tibaa'il janaa'isi xaq la ci yow nga topp niw yi ku ñuy suuli nga topp comme ni ñu ko waxee woon sànq wa <coughs> ijaabati daawati na nga wuyu ku la woo ndax ku la woowul jox la mbaamu wax la wa tashmitul aatisi ak ñaanal ku ci suuli mu sant yàlla ñu ne wa fi riwaaya na juróom benn la juróom benn bi mooy na nga laaye biir ku sàkku ci yow nga laayee ko biir nit bu ñëwee ne la oustaz wala yaa asi wala Sidi Bokar dama bëgg nga conseiller ma ci dara na nga ko ci jox ay conseil maa ngi dégg ndax léeg-léeg mu am oustaz nangam bii loo ci xam war na ci yow nga wax ko ca la nga xam te nga wax ko sa diggante ak yàlla bu doon yow nag nga def <clears throat> Ah, ñu jëlee ci yonent bi alayhi wa